di rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télé Média mbokk yi xaritu ñu seetaan dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi ay doomu Sénégal ñu tegoon leen loxo ca Tchad bàyyi nañu leen ni ki tey jii seen lim toll ci fukk ak juróom ki joxe xibaar bi di njiitu réew bu Tchad Idriss Déby nguur ga jox leen ab àpp ni fii ak benn ay bés nañu wuti ay këyit tey yemook fukki fan ak benn ci weeru juillet di bés bi àdduna leel askan wi ren ji ñuy waxtaani ëmb teel yi ñi ciy loru di njegemaar yi seen at tàmbali ci fukk ak juróom jàpp fukk ak juróom-ñeent xibaaru biti réew yi ca Mali nguur ga euh, ña ngi koy xaar ca daal ngir waxtaanee jongante palu euh, njiitu réew yooyu jongante ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bi ñu nekk jongante yooyu nee ñu euh, bëgguñ caa am benn jafe-jafe xibaaru tàggat yaram yi daan ci ñëw li ci yéen kaay naka noonu yaatal gi nes lay doon. daleen ak jàmm ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaaru diggu bëccëg gi ñu doore ko ak doomu Sénégal ya fare ca càdd ñenn ca ñoom ñu tegoon leen euh, loxo ñoom nag bàyyi nañu leen euh, ki xamle euh, li ni di jëwriñ bi ñu di njiitu réew bu Tchad Idriss Déby moom Idriss Déby wax na nag ak nguuram ne nag doomu Sénégal yooyee seenub lim toll ci fukk ak juróom jox nañ leen ap ab benn ay bés ngir ñu wuti ay këyit këyit yooye atax ñu mën a nekk càdd te duñu am benn gàllankoor ba tey ci xibaar xibaar yi tey jii fukki fan ak euh, benn ci weeru juillet atum 2013 di euh, di bës euh, bi àdduna jagleel askan bi ren ji nag ñu waxtaanee ëmb yu teel yi ak ndeeteel yi ñu ñu gis nag ne ñoom ñoo ci loru rawatina ñi ñàkk seen bakkan di njegemaar yi seen at tàmbale ci fukk ak juróom jàpp fukk ak juróom-ñeent ñi yor wàllu woowee ñu leen di xaar ngir ñu ñaax wi rawatina nag tout tànk yi nga xam ne léeg-léeg dañu leen di maye wala it bu ñu leen mayewut daal ñuy am doom Euh, te loole nag di indi ay gàllankoor niñ ko waxee woon am na ci euh, lu ci mel ni ndeeteel ak it yeneen i gàllankoor euh, ñoom nag ñu ne dañoo bëgg mbootaayu xeer yi waxtaanee njëriñum njàngum jigéen ak it naka ngay def ba mënal sa bopp aar sa bopp loole di tukkee ci bés bi nu jagleel li nga xam ne moom mooy askan wi ci àdduna war ngel këpp ba tey ci xibaar diggu bëccëg gi mbokk yi Dakar ak Banjul fa seeni rataxal seeni diggante dëkkuwaay yi Euh, naka noonu loole tax nga ñu fas yéene xaatim ay accord jëmale ko euh, ci wàllu njënd ak euh, njaay ak li nga xam ne moom mooy koom ak yeneen i ponk loole nag liñ ci jublu rek ñu ne mooy fexe ba ñaari dëkk yi nekk ci jàmm moo tax ñu amal seen juróom-benneelu ndaje waxtaanee diggante Sénégal ak Gambie waxtaan woowee mu nga amoon fële ca réewum mbànjul capitale bu Gambie Ibrahima kan ànd ak Yaya Diallo ñu teewlu leen. Mankeur Ndiaye ak naataangoom bu Gàmbi ñëw nañ nag daal di xaatim liggéey bi ñu def ci sixième session bu commission mixte bi ñaari réew yi féddaliwaat kon tànk bi ñu taxawee ngir gën a dëgëralaat suñu jëflante. wax nañu si affaire sécurité nañu def ba gën a euh, euh, renforcer coopération si affaire sécurité ndax léegi euh, àdduna bi dafa xaw tëradi li xaw xew Mali yëg ngeen ko. am na ay terroristes yu circulent partout am na ay armes yu circulent ñoo ngi def ay trafic de tout genre même trafic gu être humain loolu ñu gën si renforcer suñu coopération pour que frontière bu Mali ak euh, Gambie ak Sénégal nekk frontière bu wóor bu sûr kenn bañ ko utiliser pour déstabiliser beneen réew. yeneen secteur yu ci mel ne wàllu tourisme wàllu caada ak tàggat yaram waxtaanee nañ leen ci biir sixième session bi am na sax ay accord yuñ ci mbébét ne dinañ ko xaatim loole ngir gën a dëgëralaat relation yi ci diggante ndakaar ak Banjul wàllu commerce ak wàllu transport tamit kenn demul ñu des. madame la ministre am na proposition bu mu def ma d'accord si mooy ñu am comité mu réunir le plus rapidement possible xool gàllankoor yi si mbirum transport ñu seet ko ensemble ñu d'accord trouver ay solution mbirum transport aussi dama euh, rafetlu euh, euh, détermination bu président Yaya Jammeh am ak président Macky Sall pour que lu gën a gaaw ñu taxawal pom bi pom bi si si si si si si dexu Gambie bi pom bi dafa am déjà financement bu ñu am BAD banque africaine de développement mu nekk cinquante milliards pour ñu defar ko ak Gambie moom ci li ko soxal di rafetlu bu baax coopération bi ci digganteem ak Sénégal wante mu ngi ñaan rek lépp lu nga xam ne waxtaanee nañ ko ñu fexe koo dëggal. waxtaan bi rafet na baax na waaye nag ñu boole ci rek di gestu liñ waxtaan yu noo ñuy ko defee tamit because loolu tam am na solo kon su ko defee waxtaan bi du nekk waxtaani kete rek waaye dafa fekk lépp luñ tëral rek d'accord si dinañ mun a ne gestu ëllëg ne lii. waxtaan nañ ko d'accord nañ ci def nañ ko. ñaari réew yi taxaw temm ngir gën a dëgëralaatal seen coopération ci loolu commission mixte bi dina dajewaat ci ndakaaru ci atum 2015 loolee mooy doon juróom-ñaareelu session bu commission mixte bi. Ibrahima Kane ñu lay jaajëfal ci euh, jàngat boobile soxal euh, diggante euh, ñaari réew Gambie ak ki nga xam ne moom mooy Sénégal ñu wax soxal afro Afrobaromètre ak seen ñeenteelu xayma bi nu génne muy l'enquête boo xam ne nag tukkee na ci seenub liggéey ñu ne nag li ñu gis mooy doomu Sénégal yi xam nañ bu baax ne audit yi door na waaye nag li ñu bégut mooy ni nga xam ne moom la ñu yore wàllu koom Cheikh Abdou Khadra Mbacké Seck Diafara Ba ci ay leeral Sénégal yi ñoom yëg nañu audit yi nguur gi di def waaye junni ak ñaar téeméeri nit yi ñu laaj kontaan ñu ci yoon gi ñu yore koom-koomu réew mi donte ay effort de ñoo ngi koy def 2008 ba léegi. loolu mooy li ñu xam ne ci waxtaanu Afrobaromètre amaloon. ci wàllu audit yi euh, étude bi wone na ni sénégalais yi sénégalais yi euh, dégg euh, ñu ci gën a bëri xam nañu lan mooy audit ci suñu réew yi. économie bi euh, ay jafe-jafe la euh, da da daanaka la la teg nit ñi parce que xale yu bëri amuñu xëy donc li li sénégalais yi gis daal c'est que gënoon na fi metti mais ba léegi am na métit métit bu ñuy yëg. liggéey googu bokk na ci li nguur gi namm ci wàll wàllu yorinu réew ci anam yu gën a rafet. ministre de la bonne gouvernance sàkku na ne ñu xoolaat bu baax suñu defaraat rapport yi le ngir ñu bàyyi xel ci yenn ngëm-ngëm. ne d'accord naa ci yéen ñu jël ay outils yoo xam ne bitim réew lañ jëlee ñu indi fii ñu xool ko càmbar ko jëm ko doxal suñu réew mais dama ne luñ ko càmbar càmbar ak luñ ko xool xool war nañ fexe ba nga xam ne day tenir compte li nga xam ne moo nekk ci réew mi sax ci. loolu laa lay éviter. afrobaromètre di kuréel gu yëngu ci wàllu l'enquête l'enquête yooyu démocratie ak yorin gu rafet ak wàllu koom-koom lay saytu. njàng ak njàngale la ñuy waxtaanee dem ci diwaanu Kolda ak examen yu nu jugee muy baccalauréat ci ñeenti junniy ndongo yi ak ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo jàll premier tour tubaab bi naan leen d'office tollu nañ ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu nag bu buñ ko xaymaa téeméer boo jël ci ndongo yooyu doon def bac lu jege fukk ñoom ñoo jàll premier tour terewul ah, ba nu joxee résultat yi fitna amoon na ci yenn centre yi dañuy dem ba Kolda fekk fa suñu naataangoo Abdoulaye Diallo. ren ji académie bu Kolda jot na enregistré ñeenti junni ak ñaari candidat ci examen bii di baccalauréat synthèse résultat yu premier groupe moo wane ne ñeenti téeméer candidat yu manqué benn ñoo jàll ca premier tour ci loolu ñaari téeméer yu manqué benn ci série L prime 1 la ñu bokk téeméer ak ñeent fukk ak ci série L2 ñett en L1 juróomi admis en S1 ñeent fukk ak juróom-ñeent ci série S2 looloo joxe un taux d'admission de pour cent waaye bi ñuy proclamer résultat yi ci jury yi doon na ay waxtu yu metti pour yenn kandidaa yi. bile moom daa bëggoon a xaru dafa daal di door boppam bi ci ab mur moo waral mu am ay gaañu gaañu ci bopp bile. il a fallu que sapeurs-pompiers yi taxaw si bu baax pour ñu tere ko jëf ji ni mel ñoo ngi xewee ca centre d'examen bu Bunakan bu jury 521 newoon Abdoulaye jàlloo ginnaaw njàng ak njàngale ñu des ci biir réew bu Sénégal wax leneen li nga xam ne moom mooy mbayum daaw bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci boobile campagne agricole faaw euh, daal di taxaw nag ngir dimbale fukki junniy euh, kër loole nag euh, mi ngi amoon ci diwaanu Ziguinchor Podor Kolda ak Linguère enveloppe ba nu yëkkati def ko ca muy ay koppar yoo xam ne daal jege na juróom fukki million ngir jàppali yoo ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci moom lee mbënd dañ ci ànd ak leeralu Ali Bandel Niang gannaaw mbënd gi amoon daaw ci diwaanu dex gi bëri na ay njaboot yi nga xam ni seen dundukat demeetut noonu di ab insécurité alimentaire bi fës lool ci diwaanu Matam ak Ndar rawatina ci communauté rurale yu mel ne Nabaji Bokki jawee ak ma lii kon moo tax ba waa FAO sumb ak programme bu ñu dëppee fonds centrale d'intervention d'urgence bëgg a jàppale borom njaboot yooyu nga xamante ni seen dund metti na lool ci waxtu gi ñuy dëgmal activité agricole ñeel campagne nawet gii ñu jëm 783 milliards ci koppar dollar ngir kon jàppale ko baykat yi rawatina ci ay intrants agricoles yi ñu leen di jébbal. di dolli ndimbal jàppale sunu mbokk producteurs yi ak euh, sàmmkat yi. loolu tax ñu ut euh, jiw boo xam ni moom mu composé wu dugub. Euh, mboq ñebe ak ceeb. dimbali ko baykat yi ñoo xam ni seen tool yi daaw dafa ah, mbënd mi daf leen laaloon donc bi mu leen laalee xaw nañ sonn trop am ñoo xam ni sax seen tool yëpp pratiquement dafa sóoboon si biir ndox donc génnewuñu dara donc loolu dafa indi jafe-jafe si kër yi ba nga xam ni pour dépense kër sax dafa amoon problème suñu mbokk baykat yi ak mbokk yoo xam ne aussi ñu ngi ñu ngi sàmm ñooñu ñëpp dañu amoon problème loolu tax euh, FAO pour jàppale nguuru Sénégal ne xaaral ma jàppale yoo xam ni mbënd mi daf leen ci atelier de partage bi ñu doon amal ci Matam mu boole ay kilifa yi jiitu ay gox-goxaat yi fare ci diwaanu Matam ak ndara ñëwaat nañu ci critère de ciblage maanaam anam bi ñu war a jaar ba tabb ñi nga xam ne ñoo yeyoo ndimbal gi nawetu daaw laalaay gox yu bëri ci biir Sénégal fii ci Ndakaaru it naka noonu loolu tax na nawetu ren bi ñu nekk ca centre Philippe Maguilène Senghor bëgg koo waajal bu baax a baax ndax li nga xam ne moom mooy canal ndox mi ñu ne lekk-lekk canal day fattu ba ndox mi day taa yi ak loolu sonal ñi nga xam ne ñoom ñooy aji tawat ji ak it ñiy liggéey ca bërëb ba loole tax na ñuy rafetlu jéego yi nga xam ne def nañ ko ngir fàggu bu baax a baax nawet bi dañ ci ànd ak Adia Talla Ababacar Camara ci njàppandal ñii a ngi gas ñii di tibb xeer ak suuf ndaraan yi di sëkk ouvrier yii di tabax fi ndox mi di war a jaar ci kër docteur bii di Philippe leen Senghor ngir mu bañ a dugg ndox ñoo ngi def seen kéem kattan ngir àggale liggéey bi. ñu ngi gis avancement bu rëy parce que biñ biñ biñ defee weer gis ngeen avancement yi te du fii kese si biir Ouest Foire boo duggee ñu ngi ko gas ñu ngi commencé canaux yi quoi donc euh, balaa moo taw au moins ñu am tension yoo xamante ne évacuer ndox mi pour inondation bañ am ren moom am na yaakaar bu baax ne Maguette Senghor gis ngeen presque pare na léegi si biir Ouest Foire moo des léegi lépp mooy daje ndox mi dem Yoff incha allah. liggéeykat Philippe Maguilen Senghor ñi doon faral di am njaqare ak tiitaange nawet bu ne ren ji am nañu yaakaar ne yàqu-yàqu yi ñu xamoon daaw du amaat. Euh, daaw amoon nañ fi inondation te yàq-yàq bëri na woon euh, maanaam suñu bagage yi yëpp a yàqu woon. dese ñu yoon benn laboratoire kii benn matériel laboratoire lu fa nekkoon ci machine yëpp yàqu woon na miir bi dafa daanu woon ren moom am nañ si yaakaar parce que canalisation comme ni ma leen ko waxee nii gouvernement bi jóg na euh, ba commencé travaux yi te travaux yi fu ma gis nii parce que début bi ma yaakaar na travaux yi du jeex parce que hivernage bi euh, jege na et puis amoon na premier pluie fii donc lu ma gis nii dal na xel quand même. nawet bi dikk na liggéey bi ñu door ci Maguilène Senghor la ñu nemmeeku ci gox yu bëri. ñeneen ñi nga xamante ne amuñu pexe ñoo ngi wut ni ñu aaree seeni bopp si ndoxu taw yi Adia Talla nawet bi dikk na tàngaay ak koor gi it naka noonu loolu tax na nag euh, ventilateur di xeetu pukaay boobu nga xam ne nag euh, dañu ko defar ngir jàppale askan wi euh, fi mu ne nii li ñu nemmeeku mooy lu jar la njëg la tàmbale ci ñetti junni ak ñaar téeméer ba juróom fukki junni kenn ku nekk ci askan wi yaa ngi def loo mën ngir am sa ventilateur bopp ba boo wàccee boobile uppukaay di la ndimbali loola ci tàngaay wi ak nawet bi ak koor gi dañ ci ànd ak Ababacar ci tàngoor gi ngelaw doom bu góor la fi jaare ci uppukaay ba ci mouchoir ngir am feex bu ñëw baax na waaye askan wi bi ñu taamu di. ventilo moom a gën. ventilo moo ma gënal. ventilo. ab tànneef buy bégloo jaaykat yi bi ci yamamaay ba bi ci gën a xarale nafa bu nekk mën cee gis boppam. ñu sant yàlla parce que fi mu nekk nii daal parce que njaayu climat la quoi ndax actuellement daal moom moo fi tane daal parce que bi climat tàngoor la mënuñoo jaay lu dul ventilateur léegi moom. ay 17000 ay 18000 moo am ay 16000 affaire yooyu. am nañu boo xam ne même bu courant coupé day daw am nañuy daw nii am nañu ñuy wekk am nañu yoo xam ne day am parfum dañ ciy def parfum ak ndox. yooyu ay cinquante 50000. ci suñu ñoñ yi xel nanguwut di bàyyi ginnaaw wantiloo tàngaay di lu ñuy muslu rawatina ci koor gi. déedéet déedéet kenn warul dem sax te yoro wantiloo ndax tàngaay bi dafa metti man moom damaa meew tàngoor boole ji. su ma dëdd ba xaw a féex nii sax duma mën a nelaw duma teel nelaw daal waaw ndax tàngooru metti rek waaw voilà ma utiliser ventilateur ba koor xam nga ci boppam koor dafa metti tàngaay bu ñuy ànd ak koor kay day gën a metti rek léegi nag dañu dañu bëgg lu ñu féexal gannaaw ndox wantiloo di lu mënta ñàkk ci jamono ji nga xam ne tàngoor ak woor ne yàlla ak yàlla yi beneen gëstu bu nu jagleel weeru koor di salon de coiffure yi jamono ji nag soxna yi dañoo soppi létt yi ñi nga xam ne dañu daan def mèche ak lu ni mel li ñu nemmeeku mooy létt karaw ñu ne njàpp mi lañ ci sóoraale euh, léeg lekk ci borom salon yi ne nag koppar yi ni mu daan demee du ko demee euh, ci weeru koor yi waaye nag ñu ne diina ji moo ko laaj may mun a njaay attanaax baa lañ ci àndal koor dafa ànd ak sellal lañuy faral di wax ñiy defar bopp loolu lañu gis ba tax na ay létt yu woyof la ñuy faral di létt lu ci mel ni ay torsaat live wala sax raju clientes yi dañuy dugg suñu jàpp jàpp bi dugg waaw moo tax ñu préféré létt karaw comme torsaat wala live karaw yi wala live raju daal moom la ñu gën a préféré que tresse yi. ak ñàkk jot bi parce que heure bi weeru koor da ngay dàqante souvent. ñiy ñëw ci salon bi ay femmes mariées lañ wala ay responsables yu yor kër te foog nga dem sa kër superviser ndogu mooy li nga xam ne foog jigéen dem këram gérer ko. weeru yi nit ñi dañuy tàmm sellal duñu bëgg mèche duñu bëgg greffage ay torsaat la ñuy bëgg yaa nga xam ne bu jàppee day dugg daal. muy ay nett yu naturel maanaam woyof ci bopp njëg yi tamit taxu ko cher. renversé yi xam nga nit ñi mën nañ ko def seen biir kër am ñeneen ñu leen ko defal xanaa torsaat yeeg yooyu la ñuy ñëw di def ci salon yeeg yooyu. weeru koor bi événement yi du bari duñ dem événement kon duñ soxla ñu def yenn lettu cérémonie yeeg yooyu. lii tax na ba boroom salon yi li ñuy am di wàññeeku bu baax ci weer bi. nit yi dañuy lettu préférer garder ko lettu boo xam ne day tenir durant le mois préférer garder ko ba approche fet yi doog ko dindi. liggéey bi moom day wàññeeku moom koor moom. xaalis bi ni mu doon duggee day wàññeeku mais comme un mois la yàggul daal. naam létt yu ni mel borom salon yi duñu ci am lu bari wante pexe amul la ñu wax. ce chiffre d'affaires day wàññeeku mais bon on fait avec parce que comme mbiru diine la te weer la weer yàggul. mu mel ni laasana dafa fàtte benn élément di xibaaru biti réew yi waaye terewul ñu àddu ci bàkk ba jib na yegseegul ñu wax lu soxal xibaaru biti réew fële eh, ca diwaanu Mali nag ñi nga xam ne eh, ñoom ñooy nguur ga danoo bëgg nag fi mu ne nii ñu ne eh, li nga xam ne moom mooy élection yi mu am ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ñu may xamal ne boobu boobule élément yegseegul daañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen xibaar ñu wax ci tàggat yaram ASC Jaraaf moom nag daal dafa am ay euh, jafe-jafe club boobile nag nekk ca Medina amaat nag euh, beneen lajji ci kanamu ñaari tali ñaari tali dugal ñaari ball ci benn loolee ma nga xewoon na ca stade euh, Demba Diop Cheikh Saad bu Jara Ababacar Camara lañ ci yàndal jaraaf mu ngi dellu ginnaaw si benn bal bu Xaadim Njaay génne bu baaxul ñaari tali toj na caax yi ak Abdoulaye Ba ci juróom-ñaareeli simili bi waa jaraaf jéem yëngu mais dara doxul mu mel ni ñaari tali moo gën a maîtriser. ñun suñu équipe boo xoolee moo gën a maîtriser ballon bi en premier mi-temps loolu lañ travaillé liggéey ci ba dugal ci benn but bon ñu ne nag en deuxième mi dañ jéem a travaillé pour dugalaat deuxième but pour rey match bi quoi. loolu sax mooy am. joueur Mamadou Seck yi dañuy dàbbali juróom fukk ak juróomeeli simili bi ak Jibi Jaw Tirera. waaye jaraaf ñaari simili lañ si teg mu dugal ak Ibrahima Cissé dinañ am sax penalti si simili bu mujj bi wante Babacar Seck da koy ñaari tali jël ndam li. ñaari bal si benn. dama nekk suñu benn joueur bi Tony parce que moom joué wu loon benn match dama ko indi comme am na fraîcheur ma ne ko da ngay jël Tendeng moo def ay marquage ci moom léegi Fidèle tamit bon ma dénk ko l'autre milieu de terrain Arona Diarra ma ne leen yéen quitte à ce que sax ngeen bañ a mais neutraliser leen boo leen leen leen leen terrain ñu joué rek. mun nañ leen gagné daal parce que ñoom milieu terrain la ñuy dominer équipe yi fa la ñuy paasante pour génn ci côté tey bu ñu mënul génn ci côté yi rek bon boo leen neutraliser ba paas yi génn ci côté yi rek c'est sûr que dañ leen di gagné bon xale yi respecté consignes yooyu vraiment ñu gagné leen ko kii tàggat équipe bu Médina bi kontaanul si défense am bi. ñaari tari ñaari bii yi mu dugal yëpp bal arrêté la du action de jeu da xool tamit comme ñun bu doon action de jeu sax ñu mën a wax loolu laa ne suñu défense li ñu def loolu baaxul boo bëggee dem ci kaw football ñu lay dugal ñaari bal yoo xam ne. dañ ko teg dóor ko loolu baaxul. jaraaf ndërmeelu ñaari yoon yu tegloo. si noonu ak fanweer ak juróom-ñeenti poñ mu ngi nekk si ñetteeli placement classement bi jàmbaar mi jël pee rawee ko ñaari poñ. wàllum payooru jour jaraaf jógaat na mbaadu crise bi moo fay door. Cheikh Sadbou Diarra ba tey ci euh, tàggat yaram gannaaw jaraaf euh, ak ñaari tali ñu wax ci ñeneen muy Dakar Université Club moom it euh, jamono ji ñu ngi noyyi bu baax a baax ndax Duc daal di am ñaari ndam yu tegaloo démb nag mu dóor US Ouakam ñetti bal ci dara ñuy dugal yooyee bu di Famara maane ak Mohamed Dramé Mohamed Dramé moom moom moo dugal sax ñaari bu yi Mohamed Dramé di wax ci objectif am fukki bu ak juróom mi ñu taataan seen i kàddu di Cheikh Saad Bou Diarra ànd ci ak Ababacar Camara. instant bi ñu ngi commencé jugaat quoi ndànk-ndànk rek ak enchaîné nañ deux victoires peut-être yi si kanam dinañ jéem a maintenir kii bi quoi pour cap bi pour jéem a assurer maintien bi carrément. dama am benn objectif bu ma fixé wu woon ne dinaa jéem a atteindre quinze buts kii bi fin championnat bi si loolu laa nekk ba tey quoi maa ngi siy liggéey mais j'espère que ne dinaa ko atteindre incha allah saa bu ñu ma soxlawee rek je suis disponible jéem a def l'essentiel. ñu des euh, ci tàggat yaram boobule di football wax lu soxal wàllu soxna yi ci ñi ko xamul Dior Mbengue lay wuyoo ay atam toll ci fukk ak juróom moom nag bokk na ci soxna yi yëngu ci wàllu football moom nag euh, ma nga nekk fële euh, ca diwaanu États-Unis nekk fa nag di football ki nga xam ne nag moo ko dénk micro di Cheikh Tidiane jonn ànd ci ak Youssou Baro Euh, Washington laa commencé ba ma taxu Dallas ma commencé select soccer. ñu wax euh, ci euh, classement bu ñaar fukki journée ak ñeent ci wàllu football jàmbaar mu jiitu ne ca kanam fanweeri poñ ñeent fukki poñ ngeen baal ma benn la am Olympique de topp ca ak ñeent fukki poñ Jaraaf am fanweeri poñ ak juróom-ñeent ginnaaw tàggat yaram ñu ñëw ci beneen ponk xibaaru digg ca gi mbokk yi di ci yenn yi ki nu ko jàngatal di Fatimata Ba. dal leen ak jàmm ci li ci yéenekaay yi ñu doore kook l'observateur ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di xamle ni tekk tekkaaral parti démocratique sénégalais moo jaaxal jamono yi Macky sàll ak nguuram bu ñu sukkandikoo ci service de sécurité yi waa PDS am na lu ñuy waajal ñu teg ci sax ne boo moyul Abdoulaye Wade mi fi jiite woon réew mi dina fi ñëw ci biir weeru koor gi ba tax na service de sécurité yi ñoom jël nañu seen i matuwaay yi war ngir rekk dara ba dara booloo jeex du leen bett ci libéraux yi laas ne li jaaxal Macky sal kay maa ko xam ndax sénégalais yi kontaan ñu benn yoon. ci ci doxalinu nguur gi muy ci wàllu xëy muy ci wàllu wérgu yaram ndax dara sottiwu fi ginnaaw fukki weer ak juróom yi mu def ci bopp réew mi faj Fadjri ne maa lay feelu ak jàmm ndax sénégalais yi fukk yoo jël ci ñoom juróom ñett yi gisuñu changement ak nguuru Macky Sall bi ñu teg ci sax ne ni ñuy gérer koom-koomu réew mi du yoon keneen ku nekkul ci jàmm fan yi di Mimi Touré moom jawriñ bi ñu dénk wàllu yoon ñu mu jiite jamono yi rafetluwuñu doxalinam moom Aminata Touré ak maître Ousmane Diagne mi njiite SYTJUST di syndicat bi ëmb liggéeykat justice yi seen nataal ni fang ci yéenekaay bii dina Le Quotidien ci biir laas maître Ousmane Diagne di xam xamle ni Aminata Touré amul sañ-sañ ak xam-xam jiite ministère boobee ba tax na rek ñuy sàkku ñu jëlee ko fa. ñu des ba léegi ci nguuru Macky Sall wax ci El Pistolero moom Moustapha Cissé xëy ci xët bu njëkk bu la populaire dal ci kaw Mor moom El Pistolero ni directeur de cabinet bu Macky Sall bi nekkewul ca pale ba lu dul di jaxase ndax tey ji ñu bëri ñu jege njiitu réew mi ku ci mel ni Seydou Guèye ak Thierno Alassane Sall bu ñu bëggee gis sa président moom Mor Ngom da koy yàq doomi Bawol bi ni ci biir quotidien duma tontu Moustapha Cissé Lo ndax man liggéeyal président Macky Sall rek a jóg kii moom démb ci guddi la ñibbi si ndakaaru Souleymane Ndéné Ndiaye ginnaaw juróom benn weer yi mu am ca Angleterre yegg si na ndakaaru l'observateur ne ki fi nekkoon jëwriñ bu njëkk ci jamono yi Abdoulaye Wade anglais la demoon jàngi laaj bi kay mooy ndax dafa ñëw pour jël PDS wala solaat mbubbu avocat am lu ci mënti am rek Ndéné is back lu doy waar moo am ca Sédhiou Grand Place ne foofee ndongo yu góor yi ak seen i jàngalekat ñooy def concours di ëmbal xale yu jigéen yi ñetti téeméeru élèves ëmb nañ fa. ci tàggat yaram la ñuy àddu doore kook yéenekaay bii di le stade mi xëy xamle ne Alain Giresse woolu na mbay Niang laaj bi kay moo di ana lan la Mbaye Niang moomee mën a indil gayndey Sénégal ba tey rek ci wàllu football yéenekaay bi di xamle ni maître Augustin Senghor rekk la ñu amagum ci candidat ci woote njiitu fédération sénégalaise de football ca làmb ja la ñuy wutali waa sport ne arène baa ngi toj ndax promoteur yi bàyyi ñu dara ci saison 2013 2014 bii ñu dëgmal Aziz Ndiaye ak Gaston Mbengue di def seen kéem kattan rek ngir mën a taxawal ay combat yu mag te neex. Fatimata Ba ñu lay jaajëfal yéen tamit naka noonu ci teewlu bi mbokk yeeg xarit ñuy seetaan fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi yeneen jataayu xibaar ak rédaction bu Télé Futurs Médias kàllaamay wolof ak nasaraan ngoon lay doon bu soobee borom bi yéen doon jàmm.